Euh, Cheikhna Keita dootuñu waxati Cheikhna Keita commissaire wala boog bi nekk ci langue politique yi mais un citoyen sénégalais koo xamante ni diine gi tamit ñor na ko ñi yëngu ci wàllu diine mu soxal Sénégal gi yëpp woote li tey marche bi alors tey lan moo ci sa cër ci wàllu. mais jërëjëf ci intervention bi. sama cër lu yaatu la ci man maa ngi tudd seex na Cheikh Sadbou di sénégalais di doomu taalibe gëm tariixa vraiment du politique dama gëm tariixa dama gëm yi tamit chance la ci Sénégal dama gëm ni lu bari fii tariixa mooñ ci protégé dama bari lu gëm ni lu lu fi yaatu lu bari ci tariixa la jaar ndax mag ñi nga xam ni ñoom ñoo sooke tariixa yi ñoo ko gàddu ba tey donc su lu mel nii amee ay nit jóg di ŋàññi tarixa yi di ŋàññi mag ñi di dem ba di leen saaga sama devoir la pour ma jóg amul benn considération nag alkaati wala politique ko ak soit damay waxu sénégalais simplement loolu moom ma fi indi ma gis ay nit yi nga xam ne tamit ay doomu soxla lañu ay sénégalais ay patriotes yi nga xam ne xam na ni loolu seen mbir la seen cër la ñu daje fi ma kontaan ci loolu xam ni du man rek du man rek te mënoon nañu gën a bari comme ni ko sëriñ si waxee mais comme tey benn bis la ci bis yi am naa yaakaar ni li ñuy xeex su fajewul leneen dina ñëw faj ko. tey mu nekk benn dérive boo xamante ñu ngi koy gis mi ngi gën a jéggi dayoo comme ni nga ko waxee buñ ci jugul rek dina indi leneen tey lan mooy solution ci wàllu boobu. waaw dama lay expliquer d'abord tarixa rek solution la woon. parce que boo xoolee yeneen réew yi nga xam ni amuñu situation bi nu am islam confrérique muy tarixa nga xam ni nit ñi dañu nekk ci ay kuréel am ay njiit am ay dogal am ay digal yi nga xam ni moo leen encadré am ay système yi nga xam ni moo leen di gere am nu nu gisee seen diine ànd di ko def guddi bëccëg suba ngoon loolu su fekkee ne dafa am ñi nga xam ni seen pexe mooy dugg ci réew mi bokk sa ak seen caay-caay wala gis ni diine bi ñuy doxal warul demee nii. ñun li ñu protégé mooy tarixa yi ak ni ñu taxawee pourquoi parce que yeneen réew yi nga xam ne amuñu boobu chance bëtt nañ leen bu yàgg bëtt nañ leen ba installé fa li nga xam ne moom la ñu soxla tey solution bi lenn la il faut que ñu delloowaat ci ku nekk jouer sa rôle. état bi comprendre ni dafa am ay phénomène nouveau yi nga xam ni comme ni ko sëriñ bi mujj intervenir waxe léegi du du problème mu religion rek daf di problème mu expansionnisme mooy jóge sa réew bët. bugg dem euh, dal ci réewu jàmbur jaay ko doole nangu alalam jaay ko doole nangu suufam dund ci kawam àddina noonu la mësa doxe te du problème mu diine problème mu ay réew yi nga xam ne dañuy làkk arabe la ak ñun Sénégal bi nga xam ne Sénégal lanu ak yeneen réew yi nga xam ne ñoom bëgg nañ dal seen kaw su fekkee ñun gisee nañ ko noonu dinañ comprendre ni seen soxlay bopp la ñuy dox du ak réewande ak caay-caay yu réew la ay pexewu ay kuréel yu mag a mag mag yi nga xam ni seen soxla mooy dugg fii tey Sénégal nekk na réew mi nga xam ni ñëpp a ko soxla du ma tudd yeneen réew yi su may suivre damay gis yeneen réew yi nga xam ni mosuma leen sax dégg ñuy tudd Sénégal léegi ku yeewu seen président bu yeewoo suba mu ngoon jëm Sénégal Sénégal Afrique Afrique Sénégal Afrique ça veut dire que war nañu bopp léegi ñu xoolaat nan la ñuy taxawee taxawee suñu bopp ba tarixa bi nga xam ni moom moo ñu euh, moo ñu moo ñu difi woon foofu ñu gën ko jox place am système bi nga xam ni moom mooy gérer sécurité bi ñu gën ko renforcer ñi nga xam ni ñoom ñooy dugg suñu biir di ñu porox ndoll pour indi fi loolu ñu surveiller leen de manière systématique xeex ak ñoom ba génn leen fi yomb na parce que ay communautés yi la nga xam ni yàgg nañ fi nekk di wut loolu xam-xamaay police xam na leen gendarmerie leen mais li desoon mooy ñu àgg fii nga xam ni jàmmaarloo day am forcément ki nga xam ne nag daf lay song ci fi nga xam ne fa la fa foogee ne fa la nooyee il faut nga song ci fi mu nooyee ci moom jàmmaarloog moom xeex ak moom en continu teg ay stratégie yi nga xam dañuy tenir compte ci réalité problème bi mooy ni ñii dañuy kaw pour nguuru suñu kaw jën suñu alal gouverner ñu comme ni nga xam ne noonu lañu mës a dundee ak tubaab yi ak ñeneen ak ñeneen mais suñu taxawee nii du dem